ëpp mille trois cent milliards yoo xam ne ñi nga xam ne ñuy wax FMI daan nañu koy accordel Sénégal démb ngir nag daal di koy yombalal lu jëm ci wàllum crédit yéen a kaay gi di réew mi ko di jee nee na FMI yemuñu rek ci yombalal réewum Sénégal koppar yooyee waaye tamit daan nañu koy sant mu daal di yokk lu jëm ci wàllum bon bonne gouvernance économie réewum Sénégal waa FMI nee nañu dafa am ay jafe-jafe loole bokk na ci li tax ñu daal di koy accordel boobale xaalis waaye nag lu jëm ci wàllum subvention énergétique bi maanaam ñu koy wàññi di ko éliminer ndànk-ndànk loole priorité la FMI ñoo ko xamle yéenekaay gi de La Tribune nee na gouvernement bu Sénégal daat nañuy annoncé lu ëpp 7000 milliards ne mooy nekk budget 2024 waaye ban njeexital lay am ci dund ak nekkinu ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw loolee mooy laaj bi yéenekaay gi de Le Quotidien ak Rewmi Quotidien xëy dañu xibaar naa ñu ministre bi ñu dénk wàllum affaires étrangères di Aïssata Tall Sall ma nga woon ca parlement européen daal di génn livre bi état yi fi amoon moom Aïssata Tall Sall parlement européen ba ba nga xam ne européen yi da na a wax na leen violence yi amoon ci réewum Sénégal lépp Ousmane Sonko la ba Aïssata Tall Sall daanelee dafa am benn sénateur ceeg boo xam ne moo jël kàddu gi nee na moom dafa jàpp ne jafe-jafe yëpp mooy Macky Sall mi nga xam ne njortal nañ ko lu jëm ci wàllum sampan dëndëm loolee bokk na ci li indi tension yeeg jafe-jafe yeeg ñool-ñool yi ci réewum loole loolee ab sénateur ceeg démb moo ko wax ay Tall Sall daa de say yokkoo ne bu ñu waxante dëgg Macky Sall ci boppam moo amul sañ-sañ sampan dëndëm ndax constitution bu Sénégal mayu ci candidature Macky Sall loolee bokk na ci li nga xam ne waral na tension bi waaye tamit Sénégal li ñu fa nemmee ko bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo dugal leen ci kasu bi te nag loole wàllum politique rek moo tax du samay kàddu sénateur ceeg bi moo ko xam le ci parlement européen ci kanamu Aïssata Tall Sall Walfadjri yéenekaay nee na Sénégal dañu ko doon vilipender ca parlement bu Europe yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na sénateur ceeg bi daan na sa yokk nee na Sénégal lu jëm ci wàllum taskatu xabaar yi bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo liberté de la presse dañu koo salfaañe recul démocratique moom la ñu nemmeeku Sénégal journal bi nee na waajaa ngi Pavel Fischer la tudd yéen kaay gi de la Tribune nee na tabaski feet la boo xam ne maanaam dafay ŋàcc ñi nga xam ne ñooy père de famille maanaam borom kër yi tabaski da leen di ŋàcc ndax bu paasee xar mi yëre yi nga xam ne war nañu ko jënd loole lépp bu ñu ko xayma ay koppar la journal bi nee na xar ba léegi dafa cher ba maara détaillé yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na bu ñu tabaskee ba ci suba sa maanaam ajuma ja férié la yéen kaay gi alerte nee na directeur de l'emploi Pape lu toll ci ñaari téeméer ci ñetti matelas yoo xam ne yóbbu na ko ca kaso bu Jurbel yéenekaay gi di Rewmi de nee na gëj nañu koo dégg mu wax muy Ousmane Sonko démb wax na Ousmane Sonko démb xutba la doon def wax na lan moo waral tabaski wax na histoire Abraham a doomam jii di Ismaël Ousmane Sonko daan dalal xelu ñi nga xam ne ñooy ay soppeem ak ay militant ma nee na leen tabaski leen bu baax a baax bu leen dara stressé woo maanaam feetu leen Ousmane Sonko nee na xaalis bi nga ma ko enveloppe yi ak xar yi ko teranga la boo xam ne jaajëfal naa leen si Ousmane rendez-vous ginnaaw tabaski nee na lépp nag nattu yàlla la te nag ay nattu yàlla jàmm bi daf ko war a nangoo Ousmane Sonko jàmm la woote Ousmane Sonko nee na lu jëm ci wàllum soxor gi ak wàllum ñàkk a wegante gi loolee dafa war a jeex Ousmane Sonko wax ci histoire Séju ak Pierre wax digganteem ak Serigne Cheikh Saliou ak koppar yi nga xam ne joxoon na ko ko nee na bi ñu ko agressé ci corniche bi wax na xar mi nga xam ne moom la ko Serigne Cheikh Saliou indi la loolee mu kontaan ci moom njiitul Pastef nañu conclusion yi nga xam ne moo jugee ci dialogue national bi ba pare woo askanu Sénégal ngir nag ñëpp jóg taxaw ngir gàllankoor Macky Sall ngir mu bañ a sampaan dëndam ba pare ñi nga xam ne jàpp nañu leen ci kasu bi ñu daal leen di bàyyi blocus bi ñu def Ousmane Sonko ñu daal di koy dindi transport bi nga xam ne gàllankoor nañ ko diggante Ndakaaru ak Ziguinchor maanaam ñu daal di koy bàyyi nit ñi di dem nit ñi di dikk ndax am nañu si sañ-sañ l'observateur nee na ñi nga xam ne ñoo war a dem ci diwaanu Ziguinchor ay jafe-jafe la am ndax lu jëm ci wàllum transport bi dañu ko gàllankoor na Sénégal bu dee am na lenn loo xam ne moo fi am ay jafe ba jégg dayoo mooy lu jëm ci wàllum napp gi napp gu jaarul yoon gi ma ngi mel ni tulleeg màlle ay texte yoo xam ne dañu ko war a war koo appliquer ba léegi dara amu ci loolee tamit bokk na ci li tax maanaam napp gi ami jafe-jafe yéen kay gi di direct news ñu xëy fekk fa waykat bii di Idrissa Diop Idrissa Diop nee na Macky Sall liggéey na Sénégal def ci ay réalisation yoo xam ne yu jégg dayoo la manifestant yi nga xam ne ñoo doon manifester ay bés yi nga xam ne moom la ñu génn Idrissa Diop nee na ay nit ñoo jógoon bëgg yàq réew mi